coronavirus di woy ba tey di lëmbe àdduna dinañu ci ànd ak Mara Kunta foofu ci Italie ngir ay leexal wàllum politique ginnaaw ba coow li jibee ñeel troisième mandat kii di njiitu réew mi mawaa Ndiaye di ab juriste te xam-xamam màcc ci wàllum droit àdduna si di ñu xamal lu mën a nekk la bu ñu dëppoowee ci constitution bu Sénégal mardi gras niki talaata bi wees lañu ko màggal mu nekk talaata bi jiitu kooru chrétien yi fii si yaraax ñu daal di ko màggal si école diggu doom yi xale yi daal di si amal ay xeetu colu yu bari lu si mel ni Zorro Perman Spiderman wala sax princesse Diana ak docteur. Mardi Gras bi ñun moom am nañu habitude di ko préparer daal parce que déjà deux ans ñu ngi fi defe naa ni routine la rek su ñu chaque jour xale dañu ñëw déguisé yenn saa ñu génn yenn saa ñu fekk si école bi am nañ ci bu bare daal waaw. tay mom dañu génnul parce que poussière bee tax dal moo tay génnuñu waaw moo tax ñu préféré defal ko fi ci école bi animé xalé yi déguisé wu ñu ñëw photo wu def ay fecc ak yoy dal mardi gras man dañ koy dañuy bind ben circulaire rek envoyé ko parents yi non lañuy def pour parfois dañuy jël choisir ben thème ñu né thème bi ni lañ koy def mais thème bobu parfois ñun ñokoy koy mais cette année nak dañoo né parents yi nañ habillé sen sen xalé yi selon ni euh, culture parce que c'est très important c'est très important parce que nous ki instant bi mu ni la culture Ce su extérioriser au moins ñeneen ñi mu vraiment li culture parce que c'est l'objectif même euh, de la case de tout côtés. ancrer les enfants dans leur culture dans leur valeur culturelle culture nak du question habillement kessela du habillement mais amna yenen facteur yi ci nek comme ñun nuñ koy défé ci case des tout petits bi non la c'est une continuité en fait. mu nek nak ab feet bi nga xamni ni di goné yi dañu koy màndargal ci ay tenue yo xamni ni day wane seeni royukaay. comme ni nga gisee xalé sen déguisement yi mom varié na. vraiment am na ñoo xam ne sol nañ ay Batman ay Superman ak yooyu mais am na ñoo xam tam sol nañ cosaan loolu tam ci choix parent bi la daal parce que parent bi tamit mooy xool lu muy solal doomam parce que ñu duñu exiger kenn mu jël ci réew mi daal xam parce que loolu tam day dimbali xale si jàng parce que tey bu solee benn yére mu ne la yaay lii lan laa sol lii nga ne ko lii mooy liwit tey bu soloon tey ay euh, Cheikh Ibra Fall wala euh, ay Lat Joor ak yooyu boo ko laajee dina ne ah lii te ni Lat Joor la kan mooy Lat Joor dina fa jaaraal xam Lat Joor Lat Joor fa xamaale valeur ak yooyu yëpp daal mais nag comme li ma la waxoon rek mooy choix parents yi la mais chaque fois euh, ñu ngi ñëw daal ñu ngi ñëw ndànk-ndànk daal parce que boobu loolu rek lañ doon sol mais léegi yor olof ñu ngi dugg bu baax ci sol bi daal waaw yàlla baax na xëy na fii ak ay at at yëpp nañ ñun ñëpp dinañu àndandoo sol yére olof yi. cosaan mooy lépp boo gisee tey ñu naan Sénégal valeur culturelle yi ñu ngi yàqu. c'est parce que dañoo fullaalul cosaan même boo gisee sax ñii di véhiculer cosaan dañ leen di dañ leen di jàppee ab euh, peut-être ñu ne leen wi ñu ñàkk fayda la alors que c'est très important parce que cosaan mooy culture nit euh, boo demee ba moto culture moto existence sa existence presque pratiquement mën naa wax ne existé woo moy mooy gën a moo gën a am importance ci doomu culture

dafa changé dafa changé kanam manam amna numu nu tay nous projet bu am importance fi ñu tabax ko ñuko ñu ci ay pavage ba ñuko ay pavage nak vraiment ñu ko bu yag mu def mu ba mu soté nak ñu ñun dañ def suñu participation suñu participation mo pavage vraiment dindi nous aussi tamit jaaraale sensibiliser walé askan bi kat pavage du pour sortir. defuñu ko pour fu waay neex teg sa cantine defuñu ko fu waay am sa oto bu yàqu gaare defuñu ko fu waaye teg am sa bagage rek teg maanaam ñun ñoo war a organiser quartier bi li may wax nag waxuma ko pour waa quartier Hann Montagne 6 rek dama ko wax aussi pour l' ensemble de la commune parce que citoyen commune bi laa aussi pour ñu bàyyi xel que ne ñun ñoo war a travaux yi pare na ñun ñoo war a mën a yeggali li ci des li ci des mooy ñu assurer entretien bi ba nga xam ne ëllëg dara du ci mën a yàqu dara du ci euh, bu ñu bu ñu ñëwaatee fekk at ñëw xool ko dañ xam ne kat ñi lu ñu leen defaral mérité nañ ko daal moo taxoon tey ñu jóg ànd conseil de quartier bi ànd seeg personne ressources yi ànd seeg askan bi ñu ne kat dañuy organiser benn journée set setal aussi tamit maire bi mairie bi jàppale ñu ci bu baax a baax di remercier aussi monsieur le maire di koy féliciter ci vraiment

ñu mën a ñëw nekk ci seen wet ànd ak encourager leen mais daf ñuy permettre aussi ñuy enquérir de la réalité bi nga xam ne mooy difficulté la parce que àdduna moo bindee noonu da ngay am liggéey yooyu def mu am yu bari yooyu réaliser mu am yeneen yoo xamante ne yuy feeñ donc loolu li ma ci bëggoon wax vraiment ci ñëw bi fi ñëw man euh, Matar Diaw le premier adjoint au maire chargé de l'environnement également avec les élus Alioune Fall Pabaro et toute la délégation qui m'accompagne c'était vraiment pour sant leen gërëm leen ci li ngeen def mu dalal suñu xel limay faral di wax jëf mo gëna rassurant lu ñuy di wax di ko tay dañu posé acte bo xamantene daf ñuy dal suñu xel et ëllëg dañuy neex a àndal saa ñu wowe ñu ñew ànd ci ñom ci li nga xam ne mën nañ ko pour que ñu mën leen accompagner. message de sensibilisation d'abord jëmale que au niveau de montagne. Moi inciter tous ces jeunes là cette belle mobilisation à ce que nous gën renforcer que nous jege nga ce sont les jeunes parce que amna na bo xamantane xalé moko man Nous ndaw moko man ñu mëna renforcer vigilant nak par rapport à li nga xamné moy projet bu bess bi projet de restructuration mais di demander également aux autres quartiers à ce que nous mobilisions. dafa am un phénomène bo xamantane bu ñuy faral di wax muy set setal avons un cleaning day et autres li ci solo c'est la vigilance Nous avons une vigilance par rapport à leur cadre de vie tu vois cela nous a permis également pour rassurer les gens de montagne on a vu la situation du mur mais c'est une situation qui est assez complexe qui ne relève peut-être pas trop de notre compétence mais nous avons fait avec le préfet lui-même donc qui était indisponible semaine bi pour ñëw gis pour xool assez rapidement une mesure d'accompagnement parce que dans le mur a un da ngay indi peel daaneel ko daanu mais ci biir kër jàmbur la donc il faut ñu mën leen interpeller renforcer la coopération pour nag aussi mën a ñi nga xam ne ñoo dëkk ci koñ coronavirus di wéy ba tay di lëmbee àdduna rawatina ci Europe Italie nak nek dekk bu ëpp ay cas danaka fukku ak juróom-ñaari nit ñak nañu fa seeni bakkan ma Kunta di suñu correspondant fofu ci Italie di ci indi ay leeral nous ngi en ci Italie euh, plus précisément ci région Lombardia région Lombardia nag jamono jii ñu toll euh, ci Europe ñëpp nga koy dégg lu ko waral mooy feebar bii di coronavirus de fee dugg euh, moom région bi ñu bi ëpp ay cas fii ci Europe ñaata cas la Lombardia actuellement ñu ngi 406 cas 406 cas nag beaucoup de déggee ça ne veut pas dire que les 406 sont dañ ko am déedéet. mooy ñi nga xamante ni amoon nañ contact ak ñoo xamante ni am nañu feebar bi euh, ci 406 yooyu bi ñu leen jëlee ñu def test 213 euh, moom moo ci positif ñoo xamante ni gis nañu doomu jàngoro bi seen biir ci 213 yooyu nga xamante ni gis nañ doomu jàngoro bi seen biir am na benn 90 pour cent boo xamante ni ñoom seen yaram nangu na ko ndax ay xale lañu ndax feebaruñu. mais nag am na beneen 10 pour cent boo xamante ne nii dafay jaaxal ñëpp jaaxal ñëpp moom mooy ne ay mag lañu moom mooy ne ñoom dañoo amoon feebar yoo xamante nii feebaru àdduna la avant feebar bi di ñëw. donc ñooñu ñëpp li ci ëpp ci thérapie intensive la ñu nekk parce que seen dund dafay nekk en risque mooy 10 pour cent bi mais yeneen 90 pour cent yi contenir lañ contenir nañ leen. coronavirus bi ñaata nit la rayagum ci Italie yëpp. reyagum na 17 personnes 17 personnes yi nak mën nañu considérer ne li ci ëpp ay maguette lañu ak nit ñoo xamanteni ni amoon nañu jangoro avant euh, virus bi di ñëw dugg ci ñoom euh, Italie 60 millions de personnes la 60 millions de personnes bu ñu waxee ne 17 euh, personnes ñoom ñoo ci ñàkk seen bakken ci feebar bi mën na bañ a bëri mën na bëri ndax benn bakken rek bu root rek yaakaar naa perte la ci ñëpp mais nak buñu xolé 60 millions ñu né 17 lañ ci ñàkk gum kon feebar bi du né euh dépassé gum leen amna na ñoom fan lañ ko téye euh buñu xolé fi ci région Lombardia bi nga xamanteni ni la feebar bi nek mom ci poumon Italie la Italie bi la bokk parce que liguey li ci ëpp ci liguey weñ région Lombardia la nek moom moo tax euh, muy tiital ñu bëri parce que tiit tiit bi nekk na ci feebar bi waaye tamit nekk na ci problème mu économie euh, ñi ngi wax euh, ay quarantaine am na ñuy wax ne am na ay sénégalais yoo xamante ni mettre nañ leen en quarantaine dëgg la feebar bi ñoom dafa am benn stratégie bu ñu jël moom mooy ne bépp commune boo xamante ne nii gis nañ fa feebar bi commune bi yëpp lañuy ñuy mettre en quarantaine pour xam ñan ñoo ko ci am ak ñan ñoo ko ci amul kenn dootul dugg kenn dootul génn donc nag képp koo xamante ne nii fekk na la ci gox boobu nga xamante ni dañ ko mettre en quarantaine ak nationalité boo mënti am rek ci biir ngay bokk euh, boo xoolee benn dëkk bu ñuy wax Vaux ci Italie la moom trois mille trois cent et quelques habitants la yore mais bi feebar bi feeñee foofu ci dix neuf ou quatorze cas yi nga xamante ni recensé nañ ko trois mille yëpp kenn mënatul dugg kenn mënatul génne protection civile ak euh, ni ñi wax carabinieri ñom ñoo leen di surveiller ñu di leen di indil lek di leen di indil naan ci foofu ba xam pour maladie bi baña euh, dépasser foofu benen bi am mom moy ne képp ko am maladie bi sax fi mu toll ni alerte bi dafa la ne bul dem hôpital parce que boy dem hôpital di nga jaar ci yoon mën nga wal ñeneen ak ñeneen togal sa kër nga téléphoner li ñuy wax 112 ñom ñu ñëw déplacer wu bu ñuy déplacer wu dañuy matériel bi ci war yépp bu ñu ñëwee defal la li lay defal mën laa jël yóbbu la hôpital ci jàmm ak salaam di seen mbokk Mara Kunta depuis pour Hann TV wax ci wàllum politique ginnaaw ba coow li jibee ñeel troisième mandat kii di njiiti réew mi Maawa Njaay di ab juriste xam-xamam màcc ci wàllum droit àdduna si di xamal lu mën nekk la bu ñu sukkandikoo ci constitution bu réewum senegal question bi euh, dañ ciy soog Sénégalais ñoo ci soog a bëgg a bëgg a dugg mais ay voix yu gën a autorisé jotoon nañu yëkkati kàddu yu mel nii pour préparer euh, Sénégalais yi jamono bi nga xam ne moom lañ doon voté euh, pour référendum référendumu 2016 euh, mais jamono yooyu comme Sénégalais ni muy fonctionner defuñu ci seen bàyyiwuñu seen xel annonce yooyu nga xam ne la constitutionnaliste yi donc man jël sama mais cité des voix plus autorisées yoo xam ci jamono boobu yëkkati woon nañ seen kàddu wax ci lu mel ni te ci jiitu woon mooy le professeur Babacar professeur Babacar ko ci xarañam parce que c'est un constitutionnaliste il fait partie des des constitutionnalistes qui ont fait la constitution du Sénégal de 2001 su ma juumul moom moo nekkoon présentateur bi bi ñu le président de la république bi fait constitution loi constitutionnelle pour 2016 automatiquement mon xeeloon na wax que ni Li buñ ko bàyyee te ci disposition transitoire kenn mënul président Macky pour mu candidat à élection libérale.

Si vous ci constitution donc le président de la république ne présente présenter wat su ni texte constitutionnel bi rek le lire. def ni liir ko que président ci loi constitutionnelle bi ñu le 5 avril 2016 nous avons ni troisième mandat mais qui fait, qui fait, fee yi mënoo troisième mandat mais loi constitutionnelle est-ce que dafa tënk mandat bu njëkk bi wala tënk ko foofu la juriste juriste bi wala constitutionnaliste bi mais dans les faits am mandat bu commencé 2012 dem ba 2019 am beneen bu commencé 2019 war dem 2024 mais ci article 27 vingt sept boobu ci constitution dañuy est-ce que

ñu jeexalee ko ak xibaaru bitim réew wax ci génn àdduna ki fi nekkoon njiitu réewu Égypte di Hosni Moubarak ci benn hôpital militaire foofu sa Égypte talaata bi wees ginnaaw bi mu amee juróom-ñeent fukki at ak benn moom pharaon Égypte bi nag jiite woon na réew ba daanaka ci lu toll fanweeri at le 11 février 2011 kii ñu dippe woon le raïs dal dina ñàkk pouvoir bi ginnaaw ab soulèvement populaire bi ñu dippe woon printemps arabe ñu ngi leen di jaajëfal mbokki internautes yi di leen jox dig semaine prochaine suñu beneen journal de la semaine